مضل ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom ñu ngi koy bàkk di ko kañ ñu ngi julli di salmal ci ab yonente muhammadin salawatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi ñaan sunu borom mu dëkkee doot ci waamem xéwal ci kaw yonent bu mag ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim sunu bind bi weesu ci ndimal sunu borom ak kàttanam gisoon ngeen bi ñu jeexalee qissatu Muusa ma al Xadr ci suratul kahfi mu amoon ay tomb yu am solo yu nu jàpp ni yi day leeral ko danañ ko mën a jëriñoo ci aayaat yooyu muy yenneti pas-pas yoo xam ni ñi ñuy askane ak sufiyanke dañu koy fas ci Muusa ak Xadr ci lu amul benn muqaddima bi duni muqaddima ndax gaawal ak dars ba le passé liñ ci jotoon a leeral ñu ngi taxawoon ci sardu adilla yi ñi nga xam ni ñoom ñoo wax ni xadar ab wàlli waaye ab yonent la ginnaaw boo xam ni sardu nañ adilla yi ñay wax ni wàlliyu la donte sax loolu waruma ko tuddee wàll dalil parce que dalil dafa war a tege ci lu leer waaye waxi ña nga xamante nii ñoom ñoo wax ni nekkut ab yonent waaye wàlliyu la Cheikh Abdourahman Dimashqi day wax ni jëf ji nga xamante ni xadar def na ko nee na wax ji mu wax ni wa ma faaltuhu an amri bokk na ci tegtal yi wala ne maanaam su mbiri boppam waaye mbir la moo xam dañ ko ko digal kon ci noonu ci la ñuy gisee ni mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñuy askanee ci pas-pasab sufiyaan ci donte ma leeralaat tomb yoo fàttali woon ci las le passé buñ ñu sufiyaanke rek nga jàpp ni mbooloo ma ca nekk yépp dañoo jàdd yoon wala nga jàpp ni mbooloo ma ca nekk yëpp ñu baaxul la déedéet axankay ñu baax ña nga ca ñu ragal yàlla ña nga ca ñu jub ña nga ca ñu jubbantiku ña nga ca ñoo xam ni dëgg dëgg wax dëgg yàlla soo leen dee limal seeni jàdd jàdd lu néew la loo xam ni boo ko suuloon ci géej ak lan baax la dafay réer soo delloo ci téereb mel siiru alamin nubala mën naa ni ñi jiitu imaamu zahabi ñëpp tàmbalee ko ca saxaaba ya ba ci jamonoom ma nga leen fay tarjamaal ku ci mel ni ñoom imam al junayd imam ju mas jooju donte pas-pasab sufiyanke ku ñu fonk lool la waaye imam la joo xam ni ci aima yi nga xam ni dañuy dellu ci moom la bokk ndax bokk na ci waxam ji nga xam ni ñi ko tarjamaan ci ahlu sunna ñëpp dañ koy tuddaale mooy day wax ni ñun suñuy jëf ak suñuy wax yépp sukkandikukaay bi moo war a nekk alquran ak sunna keneen koo gis mu jàdd alquran ak sunna bu ko topp te nga xam ni kooku saay-saay la loolu imaamul junadi moo koy faral di wax sirri ak soxsay tamit kadalik wa kadalik ñu bëree bëri ñoo xam ne imaamul dahabi ma ngi leen di tudd foofu ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañu leen di askanale ca mbooloo moom waaye ñu baaxoon lañ sër ibne abdillah sa turi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam wax dëgg yàlla bu ñu amee lu ñuy tuddee seeni jàdd jàdd ci fekk soobu ci yoonu parce que sufiyanke moo leen ko yóbbee du tey ñu baax lañ ñu ragal yàlla rahmatullahi ala aljamia kon borom xam-xam yi nga xamante ni ñoom dañuy dellu ci ñoom ci seen setu xam-xam ak wér te tege ci sunna ñoom dañuy wax ne xadar kat du wàlli waaye yonent la ndax ay gént ki foog ki njortu ak ki ilham loolu nit kañ ci sukkandiku daray bakkan wala mu sukkandiku ci di def toosi doon ak tojaanga yu toy yu doy nii xëy na ñenn ci ñoom sax danañ di faral di wax ni maanaam xadar kat jëf yooyu nga xamante ni moom la doon jëf maanaam yàlla subhanahu wa taala moo ko xamal mu tuddee al alimu laduni waaye alimu laduni wax naa ni boo seetloo qara'in yi mu am ci alquran wa aatayna min ladunna rahma rahma jooju qara'in yi mu am ci alquran yépp li muy tegtale mooy ak nubuwa borom bi subhanahu wa taala wax gi mu wax ne aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman mufassirun yi nga xamante ni yëpp yu'tamadu ala aqwalihim dañuy wax ni rahma foofu li muy teg moom mooy ak nubuwa beneen bi ci des mooy xadar ci boppam xadr bi mu dajeeg Moussa ne ni ko man day yor naa ci xam-xam loo xam ni mi ngi bàyyi koo fa yàlla yow xamoo waaye yow it yor nga ci xam-xam loo xam ne waaye fa nga bàyyi koo fa sunu borom man xam nga ko kon kenn ku ci nekk am na ab cër ca nubuwa ak la nga xam sunu borom xamal na ko te xamalu ko moroomam ànd ak xadar tamit boo seetloo wax ji mu doon wax ak Moussa alayhi salaam ci buntab leeral lim doon def la ndax xadar dafa def ay jëf ba noppi mu ne ko sa unabbiuka bi tawili ma lam tastata alayhi sabra gis nga foofu foofu rek ab tegtal la boo xam ni ku amoon xel bu taxaw ci rek seetlu li nga xam ni même bu amul yeneen tegtal yu bari di nga xam ni xadar ab yonent la ndax xam ngeen ni ci jamono comme discussion lañ koy wax wala mujaadala wala def débat ak yu demee noonu wax dëgg yàlla ku nite doo doyloo mukk lii sama idée la lii sama xalaat loolu dafa soof lool ci ci nopp ñuy déglu maanaam ku wax da nga war a di tegtal nangam ji nangam ji da nga war a waaye def naa ko wala sama maam moo ko wax wala def naa ko ba nag waaye loolu mooy sama gis-gis mooy sama dégg-dégg déedéet loolu wax dëgg yàlla su doon nit ak nit nga xamante ni seen ndox ngeen nekk rek dana doy waaye publiquement mu nekk alquran bi ñuy jàng mu nekk loo xam ne ci ginnaaw ñëpp dañ koy déglu loola wax dëgg yàlla lii mooy sama xalaatu bopp du ko mën a doy kon li am rek mooy wama faaltuhu an amri yi lii ma def du sama mbiri bopp loolu mooy wenn kon dañ la koo xamal te ki ko xamal nam doon xamlee ci mel noonu ak nubuwa rek la ko daan joxee muy suñu borom subhanahu wa taala kon ci buntu boobu boo seetloo ahimma yi yi nga xamante ne dañuy dellu ci ñoom sufiyanke yi ku mel ni imaamu Shaaraani yi moom yu baree baree bare da ciy sukkandiku ci buntu bi maanaam di wane ni kat jëf yi xadar defoon jëf la yoo xamante ni tegewul ci nubu waaye mi ngi tege ci wilaaya waaye buntu boobu borom xam-xam dañuy wax ni bés ko ubbee njaaxum gu rëy mooy ci jéegu ci sharia ndax su fekkente ne dañuy képp koo xam ni jàdd na sharia rek def ay xuraafaati boppam ak i tojaange ba su tooxi doonam bu kenn dal ci kawam ñu ne lu tax bu kenn del ci kawam ñu ne ah moom kat mën naa tegtaloo ci xadar parce que nit dana toll foo xamante nii kat ak wilaayam dana ko may mu génn sariya buntu ba buñ ko tijji woon ndax yaakaaru li ni njaaxum bu rëy dana am te tijji giñ ko ñenn ñi tijji moo tax njaaxum yi di am ndax ñi ko tijji da ngay jékki-jékki am sàmba mu jékki-jékki fay rek yeewu benn bis rek xadare ko feeñu ma ngay naan sàngara te naan suñu borom da koy soppi meew ma nga takk ci ay soxna lu ëpp juróom-ñeent parce que sharia da ka tënk tut moom kat ila axiri moom daal def ci ay tojaange loo xamante ni diw ñoom diw sànga buñ la yoree la bor ba yow nga fayee ko fii ci àdduna ndax àllaaxiram doo fayee yooyu yëpp ay xeeti tojaange yoo xamante ni li tax ñi koy wax di ko wax mooy ci xadar lañ sukkandiku maanaam ay taalibe ay xadar lañu bëgg a wax te boobu sax damaa jàpp dañuy tooñ xadar beneen bi ci des mooy su fekkoon ni sax loolu mën naa nekk kan moo nu wax ni diw mii sell na ba àgg ci daraja jooju diw mii sellul ba àgg ci daraja jooju kon képp ku xëy rek ubbi ab buntam ni xadar feeñu na ko wax na koy tajaange su boobaa mën naa naxee nit ñi ca lool te kenn du ko mën a wetti boo seetloo ba léegi xadar nee na Moussa hada firaaqu bayni wa bayni tey laay teqalikoog yow imam ibn al jawzi imam bu mag la soo demee ci téere bu ñuy wax mana al manaarul munif dafa wax wax ju am solo ci baat bi mu ni فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى عليه السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة mu ni ndax seen xel mën naa nangu ni Xadar nekkut yonent te Moussa dib yonent te ku dul yonent yonent gën la ba pare Xadar naan Moussa tey ma teqalikoog yow mu ni ku baax ba mel ni Moussa ku teqalikoog moom koo nar a àndal ci mooy ndax yaakaar ngeen ne xadir dana bàyyee ànd ak yonent dem di ànd ak gaa yoo xamante ni ay innocent lañ yu xamul dara ay jaahiluun lañ nga xam ne laa yaxduruuna jumaatan wala jamaa duñu teew àjjuma duñu teew ci mbooloom jullit ma duñu teew ca dar sab xam-xam ba ah te wëlbati ko kenn ku ca nekk naan xadari mooma wax xadari mooma deey ba mu paree mu wax ci wax ju am solo mu ni lii day du dal ci kaw kenn illa jaahilun laa yasxabuhu illa shaytaanun rajim mu ni subhaanaka hada buhtaanun azim mu ni wax yii day du ay wax yi wàcc ci kaw kenn lu dul koo xam ne ku réer la ku xamul su muy teg ay tànkam la koo xam ne saytaane moo ko topp te it mu ni tuumaal gi ñuy tuumaal xadar ci wax yooyu mu ni tuuma la joo xamante nii dara tegewul ci dëkk kon ñi nga xamante nii ñoom dañoo wax ni xadar faatu nu mu tuddati ab yonent la seeni tegtal moo gën a dëgër te moo gën a wér aqlan wa shar'an moo gën a wér ci wane ne kat xadir moom ab yonent la waaye nekkul wàll yi kon masala moom defe naan loolu rek ci gàttal ndax tënk ndax bañ waxtu dabaat ni comme keroog dafay doy sëkk pour wane ni xadir ci boppam du ab wàlli yu waaye ab yonent la ma wax la coono bi ñuy daj ci lii yëpp lu am solo la parce que xadir buñ ko taxaleeg wilaaya rek dafay tijji porte bu garaaw bu rëy mooy ndekete kat nit mën naa àgg ci darajey wilaaya foo xam ni moom jëratul muy topp ab yonent sariya dootu ko tënkati su ko defee moom bu ko neexee mën naa bañ a dem juma mën naa bañ a dem makka mën naa bañ a dem nangam tey naan sàngara tey lekk yàpp bàmko takk ci soxna looku ñeent maam daal dara tënkatu ko lan mooy ci tegtal mu ne parce que xadir Moussa tënk ko woon alayhi salaam waaye doy na ci yiñ la wax ci ay tegtal boole ca ni xadir ci boppam yónni wuñu woon Moussa ci moom ndax dañu ko yow la Moussa man Moussa bu waa banu Israil kon bu bokkoon du ca génne boppam wallahu alam ñaareelu xadiya bi mooy ndax xadir mi ngi dund ba tey wala faatu amaan na ki dégg titre bu mel noonu bu xamagut bunt bi li ci nekk mën naa laaj boppam xadir mi ngi dund ak dund kooku ban sens moo ci nekk ahan kay ak am sens sens bi ci nekk mooy ila yawmina hada ila saatina haadihi am na ay nit yoo xam ni ñi ngi def ay tojaajee ki njaaxuma ki loo xibaar yoo xam ni dañuy wax ni xadir leen kay ni ba tey te ñu njëkk ña xadiman wa xadisa kon ki jàpp ni xadir moo ko feeñu kon mooy xadir mi ngi dund ba tey moo taxit ñoom duñu nangoo faat xadir bu dañuy bàyyi rek mu gudd fan di lëw-lëw yi dem am mbooloo ci sufiyanke yi dem nañ ci wax ni xadir mi ngi dund ba tey ñu koy wërsëgal mi ngi dund ba tey comme ni nit ñi dundee lii kéemaan bi sax mooy al imaamu nawawi moom dafa nettali nettali boo xam ni ñenn ñu bari sax dañoo soo demee ci téere boobu ñu wax tartibul asmaai wal lugaat da caa wax wax joo xamante ni sax ñenn ñi dañoo foog ni moom daa saxal di xadir mi ngi dund ba tey fekk saxalu ko dee dana nettali rek saxalu ko maanaam appuyé wu ci pour joxe ay tegtal wala ni mi ngi dund al imaamu Nawawi mu ni nettali nañ ak dëppoo ci sufiyanke yi di wane ni kat xadir moom mi ngi dund ba tey te it ñi nga xamante ni ñoom ñu baax lañ te ñoom nettali nañ ay nettali yu jóge ci ñoom di wane ni kat xadir mi ngi dund ba tey ay barab yu siiw yu sell comme Makka comme nangam am na ñuy yegg ba wax ne sax bëreetu aj xadir ak yërt yàlla Ilias ñooy daje foofu kii wat morom kii wat ka ca des mais dañuy nettali nettali yoo xam boo ko déggee sax ay reetaan da lay jàpp léegi maanaam yow mi nga xamante ni yaay défendre charia ci sooxi doon yi ñu ciy dugal am na nettali yoo xamante ni ni mu soofeek ni mu ñàkkee valeur boo ko déggee au lieu que nga ciy mer da nga ciy reetaan ndax Xadir ak Ilias danañ daje kenn ku nekk wat bopp morom man damaa xamul ku leen di gis fa ñuy watoo sax ak yan jumtukaay la ñuy watoo ñoom suñuy watu yooyu daanaka wax dëgg yàlla waxi nax sa kandang kese la ànd ak loolu lépp am mbooloo ci ñi nga xamante ni ñoom moom duñ sax ay sufiyanke waaye nag defi tojaange da leen neex dañuy faral di sukkandiku ci loolu ngir kenn ku ci nekk am loo mën a layeele ñenn ñi wax daje woon ak Ali ibn Abi Talib ñi naan daje woon ak Omar ibn Abdul Aziz ila axir di wax ay wax yu bëree bëri al-Ujuba nag mooy imaamul Qurtubi ak ni mu nekkee imaam ju mag nga xam ni daanaka mën naa ni ci aima yii dellu ci moom la bokk moom daa bokk ci ñu saxal loolu imaamul Qurtubi boo delloo ci tafsiram moom dafa saxal ni xadir mi ngi dund ba tey waaye saxal gi weddiwaat na ko weddi bu gaaw da koo saxal ba noppi weddi ko léegi nag ñi yëg ni saxal na ko fan jaar ba yëg ni saxal na ko waroon nañ faa jaar ba yëg ni weddi na ko amaana borom xam-xam mën naa saxal lëf te fekk jamono bi mu koy saxal ci ay jumtukaay ak xam-xam ak i delluwaay yu mën a contre la mu koy saxalee feeñagut mu dem ba ci digg ba mu feeñ mu feeñ al imaamul Qurtubi saxal na ko waaye bi mu ko saxalee ba nopp ba gis xadiis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam te xadiis bi daan ko tudd sànq keroog ba mu naan guddi gii ma toog tey buñ ci tegaatee téeméeri ak amul kenn kuy dund moo tax imaam Qurtubi gisee xadiis ni kon de même bu deewul wóor si nit ñi dee na moom loolu daal di mujj waxaat kon loolu mooy waxu imaamul Qurtubi ñi nga xamante ni ñoom dañoo wax ni xadir mi ngi dund ba tey faatoogut bokk na ci seeni tegtal yenn yi ay nettali la ay xabaar yenn yi nekk ay gént yenn yi nekk ay wax yoo xam benn waaye mooy yeewu rek wax ko gis nga toujours boo seetloo ñoom seeni tegtal maanaam du tege ci lu dëgër mukk diw gént na ak diw feeñu na ko waxoon naa ni suñu toogee ci barabab leeral xam-xam diwa ko gént ak diwa ko foog ak diwa ko yaakaar loolu du doy tegtal pour convaincre nit ñi waaye tegtal boo xamante ni saxiix lay doon ba nekk ba noppi nekk sarix day wér ba noppi daal di ñëw direct wax ci masala bi mu leer loolu moom mooy doy am na waaju siiw fii ku ñu xam ku ñu Cheikh Abdul Qadir al Jaylaani am na benn téere bu mu taalif su dee al Ghunya gis nga boo delloo ci téere boobu mi ngi ñuy jaay ci marché yi téere boobu Cheikh Abdul Qadir al Jaylaani lañ koy askanale al Ghunya la tudd téere boobu boo ci delloo daanaka mboolem sufiyanka yi seen naxasakandak yi ñuy sukkandiku ci xadar mi ngi dund ba tey boo demee ci téere boobu ñu ngi ko fay nettali waaye yëpp boo xoolee daal ay xadis la yu wérut wala mu nekk yoo xamante du ay xadis sax faf nag ay waxi nit la ñu aska nekk yéen ci ba xam ne koo xam ne taxankatu guddi la yow moom mat boo romb yóbbaale su baaxee nga jëm su baaxul nga jël moo tax nag li tax ñooñ sufiyanke contre ahlul xadis yi wala asar loolu la ndax damay faral di wax ni ku aj da ngay bañ ku téen loolu olof yi wax ku aj day bañ ku téen ku denc ci rondal day bañ ko day bañ ku sëgg ku denc ci rondal da ngay bañ ku denc looy bañ ñu koy gis ci rondal da ngay bañ ku sëgg ku denc looy bañ aj looy bañ ku ko gis da ngay bañ ku téen te ahlul xadis yi wal asar dañuy téen di sëgg parce que yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale na lépp comme ñoom masala mu ñëw ñu indi lu ci yonente bi wax moo tax dañ leen a bañ lool wallahi am na ca ñoo xam ne yegg nañ ci nin ma ne muñal ab kudul julit ak jëflanteeg moom mënuñu koo muñal virgule ci ahlul xadis wal asar loolu nag li ko waral mooy maanaam seen xeeti tojaange yi nga xamante ni ñoom dañ koy baral di feeñal boo seetloo maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo wax ci xadar mi ngi dund ba tey boo seetloo adila yi ñu indi yëpp déglul aima yi nga xamante ni ñoom fii haadal fan nga xam xam nañ luñ askane la yonent bi ak luñ ko askane la ca wér ak la ca wérut al imam ibn al jawzi am na benn téere bu am solo bu mu tuddee al mawduaat mooy wax yi ñu askane la yonent bi te wérut boo ca delloo nee na xadis yi ñëw yi yëpp wala wax yi ñu toxal yëpp di war ne xadar mi ngi dund ba tey nee na xadari ahadis yëpp baatila ak neen la te xam ngeen baatil ak mawdu ci gën a yées ci xam-xamu xadis ci xadis bu ñu daifan la bokk al imam ibn al qayyim ci almanaarul munif boo ci delloo mu ni xadis yi nga xamante ni moom la ñuy tudd dundu xadar ba tey yëpp ay kadib la ay kàcc kese la mu ni benn wéru ci mu ni wala yasixu fi xayaatihi xadisun waxid xadar mi ngi dund ba tey mu ni benn xadis bu wér sax mu ni saxu ci al imam ibni kathir ibni kathir boo delloo ci bidaaya wa nihaaya wala nga dellu ci tafsiram ñaar yëpp benn bu ci nekk wax na ci lu jëm ci biram xadar muy hadihi alriwayat walxikayat hiya umdatu man dahaba ila xayaat alxadr ila alyawm wa kullun min alahadith almarfuati daifatun jiddan la taqum misliha xujjatun fi ddin nee na xadis yi ñëw riwayat yeeg nettali yi mooy sukkandikukaay ñiy wax ni xadr mi ngi dund te ay nettali kese la jërul di jaar di yàq waxtu parce que taxalum guddi la lu mu for yomb mu ni ñi ciy sukkandiku ni xadr mi ngi dund ba tey ca loola la ñuy sukkandiku waaye xadis yooyee yëpp ya ca nekk marfo dafa daif lu nekkul marfo moom daanaka noppal lañu jëruñu cay gëstu nee na kenn du ci sukkandiku ci lu mel noonu ci wàllu diine ginnaaw bi sax mu waxaat ni maanaam xadis yi nga xamante ni ñëw na ci sax turu xadar boo seetloo yi ci ëpp sax dafa wérul faf imam ibn hajar al asqalaani boo delloo ci al isaaba fi tamyiz sahabati ma tuddoon ko dars bi passé boo delloo ci fathul baari nga xam ne moom la sarxa buxaari boo delloo ci téeréem boobu nga xamante ni moom lay wax ci dundu xadar mu zahru nadr fi nabail xadar ñetti téere yi boo ci dellu lam jay safal mooy amul lenn lu wér bàyyi ko ci benn borom xam-xam buñ mën a sukkandiku ci ay waxam ci wane ni maanaam xadar mi ngi dund ba tey mu ne leen nettali yi ciy nettali yépp borom xam-xam xadiis yi dàq nañ ko parce que wérut al amin alhaaj muhammad benn borom xam-xam la moom it dafa taalif ab téere moom sax téereem bi mi ngi ko tuddee al xadar nisbatuhu wa nubuwatuhu xadar aw askanam ak niñ koy koy askanalee tamit waaye aku yonentaam ak taamiruhu boo agsee tamit ak dundam boo ci delloo ci téere boobu mu ni mboolem sukkandikukaay ñi nga xam ne ñooy wax ci dundu xadar ak mi ngi ci des ba tey nee na amu ca kenn ku mën a andi tegtal lu dul al ahadis yoo xam ne waahiya la yu doyadi yu yëmbëx ah wal xikaayatul baatila ay nettali yoo xamante ni ay neen la mu ni wa ru'a al manamiya ay gént yoo tëdd ba gént ko mu ni wala hawatif seytaan yi wala loo xam seytaane la koy jéeri nga yeewu di ko netti kon cheikh bi mu ni boo seetloo sax nag xadiis yeeg asar yeeg nettali yeeg ya ca ñëw yëpp benn sax benn benn rek moo ca xaw a tane te sax wérut de dafa xaw a tane rek maanaam ya ñëw yëpp moom daanaka booleel sànni ji sën ba waaye mu ne am na ca benn asar boo xam ni bu amee tane sax tane moo ca xaw a tane asar boobu la nettali mu ni ñi ngi ko jëlee ci Yaqub ibn Sufyan mu jëlee ko ci Muhammad ibn Abdul Aziz ar-Ramli mu jëlee ko ci Bamra mu jëlee ibn Rabi'a mu jëlee ko ci Surri ibn Yahya mu jëlee ko ci Rayah ibn Ubayda muy damaa gis benn waay bu ànd ak Omar ibn Abdul Aziz di dox nee na mi ngi jël loxoom teg ko ci kaw mbaggum Omar ibn Abdul Aziz ñoom ñaar ñu ànd di dox nee na bi ma ko xoolee ma xam ni fii dëkku ci dëkk bi ma ne waaw kii moom ku mu war a doon nee na bi nga xamante ni ànd nañ ba dem ci jàkk ji julli ba pare ma laaj Omar ibn Abdul Aziz ni ko waaw ki ma seen mu ànd ak yow léegi kum doon mu ne ko gis na ko mu ne ko waaw gis naa ko mu ne ko man de maa ngi foog ni yow ku baax la ndax ni nga def ma gis ko te mbooloo mi gis ko mooy wane ni yow ku baax la mu ne ko kooku sama mbokk mi la muy xadar moom kat sax jot na maa bégal balaa moo dem nee na man dinaa nekk amirul muminin bala maa continuer li ma tax a jóg dafa am benn waqfa bu bu am solo boo xam ne bu ngeen ko seetloo rek yow bala ma la andil benn tegtal da ngay weddi xisa bi ba pare gis nga ñi jàng ilmul mustalah dañuy wax ne dafa am gàkk gàkk buy am ci xadiis bu ñuy tuddee an nakaara fil matn maanaam loo xam ne dañ koy bañ te ci matn bi lay nekk maanaam xadar yow mi saxal ni wàlliyu la kon kay wax dëgg yàlla war ta mën a xam kumpa ndax bu doon nabi la sax ñu ne xëy na yàlla moo ko xamal waaye yow mi saxal ni wàlliyu la ba noppi nga bëgg koo xamal kumpa ba muy xam lu ñëwagut ñu Omar dana nekk amirul muminin loolu ak nakaara la buy am ci mat di gox boo xamul benn illay xadis bi sax boobu doy na kooku benn la beneen bi ci def al imaamu zahabi mi ngi nekk li def ci yaram ah keroog ba magi Omar ibn Abdul Aziz faatoo ñuy wax kan moo war a yor xilaafa gi Omar ibn Abdul Aziz génn dem di xooli kan lañ koy jox bi mu yegsee ci secrétaire amir ba woon xam nga lu mu ko wax dana ko dimbali ma ngir yàlla nga wax ma ndax man lan fal wala faluñu su dee man lan fal damay folli sama bopp léegi parce que bëgguma fal su dee faluñu moom nga noppal sa bopp ma dem nga dem allahu akbar mbokk yi Omar bu xamoon ni moom danañ ko fal ak duñ ko fal coono bi dana ko ci daj déedéet. waa ji ni ko duma la wax dara ndax secret jàmbur la mu topp di ko sarxu ci yoon pour na ko wax ndax moom dañ koo fa buñ ko falee moom li mu bëgg mooy mu folli boppam mu jeex te yam ci loolu de bi mu demee ba mu wér ko ni moom lan fal dafa taxaw ci jàkka ji xutba bi mu xutbaa mu ni ee yéen mbooloo mi ñëpp dëppoo nañ ci ne man lan fal waaye wax dëgg yàlla falu du sama yitte wekki naa fal bi ngeen ma fal wekkaat leen ko seet leen ku leen doy mbooloo mi jug ni ko seet ñu kenn yaay fal suñu kanam ah yii yaakaar naa ne bu fekkee daje na kon da ngay xam ne nakaara gu bon sax am na ci matlu bi di wane xadis yu wér waxuma la li ci borom xam-xam yi wax imam ibn kathir toxal na jële ci ibn al-jawzi mu ni ramli mi nekk ci càll gi majruux la dañ ko dàq kenn du jël ay waxam wa kadalika tamit ibn al-munadi ibn al-jawzi mi ngi nettali jële ci abil hasan husayn ibn al-munadi mu ni xadisu riyaaxi mooy waa ji nga xam moo nekk ci càllale gi muy riyaax ibn ubayda bi muy wax xadis mu ne xadisu riyaaxi kar riyaax ñoom nag yàlla day amee dañu mënoon wax lool mu ne xadisu riyaaxi kar riyaax riyaax ibn ubayda ta mii nga xam mooy indi xadis bi mu ne ay xadisam kar riyaaxi comme ngelaw baal mu jàll jot jot li olo bi naan kii ay waxam jot duma say doom xam nga ku ñu xës wax ni say wax jot duma sa doom moom daanaka mooy xas nan la hakada gi nga mi ngi noonu donte nag ñenn ci borom xam-xam yi sax am na ñu wax ne xadis bi kat tane na sax ku mel ne alxaafis ibnu xajar wax na wax dina mel moo tax gis nga borom xam-xam yi léeg-léeg nga romb cof ci seeni wax te romboo cof ci na res mën na laa trompe ibne xajar bi mu yegsee ci xadis bi dañu mboolem xadis bu ñëw di wax ci mbiram xadar mi ngi dund ba tey xadis bu tane bii amu ci xam nga xadis bu tane bii amu ci baat boobu dafay nuru ni da ko wéral te fekk déedéet ñetti téere yi ma la wax yëpp al isaaba fi tamyiz saxaaba fathul baari ak téere boobu zanarul nadar boo ci dellu bu nekk dafay wane ne maanaam xadar nekkul kuy dund ba tey kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo wax ni xadar mi ngi dund dund ba tey daanaka mën naa ni du ma wax seen tegtal dama wax amuñ benn tegtal seeni wax ngoog laay wax amma boo ñëwee ci ñi nga xam ne ñoom dañuy wax ni xadir faatu na am mbooloo lañ ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañuy dellu ci ñoom imaamul Bukhari nga xamante ni ku ci mën di wax ku nekk sa wayjuru góor imaam Bukhari mën na koo jàngal ñi ëpp ci ñi nga ciy dégg ñu ci gën a rëy làmmiñ tey imaam Bukhari waxuma mën na leen a jàngal waaye seeni wayjur sax Bukhari mën na leen a jàngal moo leen raw fuuf imaam Bukhari imaam Ibrahim al-Harbi ci ayima yu mag yi la bokk. biñ ko laajee ni ko waaw ndax xadir mi ngi fi ba tey dadi man axaala ala gaibin lam yantasib minhu wa ma alqa hada bayna annaasi illa shaytan nee na waaju kenn mënta gis ku ni mi ngi fi maandu woo da nga kaa war a wane ban gis ko loolu la yàlla sootal ko suñu dugg gi lay wax ñun kenn nit kuñ ni mi ngi dund ba tey man axaala ala gaib ku joxañ koo xamante ni dafa absent ci mbooloom nit ñi kenn mënu koo gis te saa bu ñu waxee nga ni mi ngi fi mais da ngaa war a fexe nga wane ko ñu gis ko att yooyu nag nit a tax muy wax yàlla bokku ci subhanahu wa taala kooku benn la mu ni te lii tax nag seytaane rek moo ko dugal ci xel yi abul xataab ibn dihya ak abul xusayn ibn al munaadi ñii ñëpp nee nañ gëstu nañ ci masala yi wax ci ndax xadir mi ngi dund ba tey waaye boo seetloo dara wéru ca ibn al jawzi nee na xadis yii nga xamante ni moom la ñuy askanalee xadar ak asaar yi di wax ni mi ngi dund ba tey nee na boo ci xool nekkul bu wér bal ibnil jawzi sax dañuy wax ni moom bokk na ci ñi gën a yaatal ci bunt bi ci wane ni maanaam xadar nekkul kuy dund ba tey alqaadi abu yaala alqaadi abu bakr ibn al arabi nga xam ne imaam ju mag la min aimati l malikiyin tey bara ngay xam ni gis nga mboolam yi ci bari maanduwuñ da ngay ñëw di askanoo ci ngiram imam malik waaw kii imam la bu ci mag bal sax nag dañuy wax ni moom imam Aboubacar Ibn al Arabi ak imam Ibn Abdul Bar ak imam Abu Abu Zayd al Xayrawaani ñett ñi liggéeyal nañ ci ngiram Malik ñoo xam ni keneen liggéeyu ko ci xanaa maandu te kon mooy nañ mën a jëlee ay waxam yëpp bu ñu yegsee fii nañ déglu moom bokk na ci ñi nga xam dañuy wax ne xadar képp ku la wax ne mi ngi dund ba tey kooku mu ne wax na lu xamut wax na sax lu mu xamut fam Abu Xiyaan al Andalusi ak Cheikh al Islam Ibn Taymiya ñi ñëpp bokk Ibn Taymiya sax bal nee na li gën a wér ci waxi borom xam-xam yi mooy Ilias ak Xadir ñoom ñaar ñëpp faatu nañ watante geeg rombante geeg fekkante gi fakkaat mu ni yëpp dara wér bal sax Ibn al Qayyim nga xam ne ndongalu susoon rëkk la ci Ibn Taymiya bi muy tudd téere yi Ibn Taymiya taalif tuddaale na ci doon téere boobu moom mosuma dégg ko wax mosuma koo gis waaye Ibn al Qayyim nee na am na benn téere boo xam ne Ibn Taymiya taalif na ko boo xam ne dafay wax ci mbirum xadir kese téere boobu nag xëy na gisuñu ko gisuñu sax kuñ ñu gis na ko waaye ibnul qayyim bu ko waxee xam na ko ndax ndongo loolu lu ko jege lool alxaafid ibnu xajar bi mu indee tegtal yi ba noppi déglu ko moom mi waxoon ni xadis bi ci tane bii la mu ni walladi tamiilu ilayhi nnufuusu aw innafs min xaytu al adillati alqawiyati addaamiga xilaafu ma yactaqiduhu alawaam min istimraari xayaatihi nee na li nga xam ni boo boolee tegtal yi vérifié bu baax càmbar teg la xel gën a jeng te jàpp ni mooy li gën a wér wuute nag li nit ñi fas ci ni xadir mi ngi dund ba tey mooy xadir faatu na al imam al allaama muhammadul amin shanqiti defe naa mooy borom tafsir bii ma yore adwaul bayan fi idax al quran bil quran téere bi boo ci delloo di nga ci fekk ay masail yoo xamante ne yashfi al alila wa yubrahu al sudur bu doon tawat nga ëndaale ci bëgg xam ci mbirum xadir da ngay wér bu doon da ngaa amug ñëgg-ñëgg xol da ngay kontaan masala la moo xam yaatal na ci lool Muhammadul Amin Shanqiti wax na ci wax yu am solo xatta bi muy tafsir aaya yi sax te dinaa ci tudd benn baat ci yenn yi nga xam indi na ko ci wane ni kat maanaam xadir moom faatu na ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ni xadir faatu na bokk na ci seeni tegtal waxi borom bi subhanahu wa taala mu ni wa ma ja'alna li basharin min qablika al xuld yonent bi sunu borom mu ni ko ñi la jiitu woon amu ci benn mbindeef déglu de wa ma ja'alna li basarin amul benn mbindeef nakira la tey fii siyaaqi naf yi ba léegi amul benn mbindeef bu la jiitu boo xam ni borom bi subhanahu wa taala defal na ko ak sax alxul kon nag afa in mitta bu dee yow yaa faatu après afa humul xaalidun ndax ñoom ñoo fii sax kon sunu borom dàq na ni amul kenn ku fiy dund ci mbindeef yi moo tax Ibn Kathir mu taxal jëlee ci ibnu jasi mu ni fal xadiru id kaana basharan faqad daxala fi jumlati hada al umum muy léegi da ngay laaj xadir nit la wala du nit xam nga boo nee du nit moom bari nañ te jërut ñu ciy sonnati waaye bu dee nangu nga ni nit la mu ni kon xadir day dugg ci jumla ji ci wane ni kon maanaam moom faatu na te amul benn tënk bu moo tax ashanqiti mu ni fa qawluhu li basharin mu ni nakiratun fi siyaqi nafyi fa hiya taummu kulla basharin waxoon naa ni téeréem bi daf ko liggéey ci liggéey bu rafet tuddee ko adwaul bayaan ah fi idahi al qurani bil quran lumière yi leeral lamp yoo xam dafay niit di leeral ci firee alquran ci ayaati alquran mu ni wax li mu wax ni li basarin mu ni nakira la mooy lu lu lu lu lu réere la fii siyaaqi naf yi day dàq te nakira saa bu ñëwee fii siyaaqi naf yi mu ni fa hiya taummu kull al bashar mbindee bi amul ci biir li kuy mbindee bi rek mu ni ca nga daal di dugg kon mu ni lii su fekkoonte ni xadir dafa naanoon ndoxum maa ul xayaat comme ni ñu koy waxee ñenn ñi li ñuy waxee ni ca la laaloon jën wa mu ni su fekkoonte ni loolu am na mu ni kon xadir kat dana bokk ci kéemtaani yàlla yi gën a màgg yi nga xam dana leen fili ci alquran te loolu mooy li am ñaareel bi tegtal bi ci wane ni xadir faatu na yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bi si xadis abdullah ibni omar dani saxaaba yi ara aytum laylatakum haadihi fa inna ala rasi miati sanatin minha laa yabqa mimman huwa ala dahri l ardi ahadun xadisu Buxaari Muslim ñoo ko solo te am na benn bi riwaaya riwaayab Jaabir nee na lii bi ko yonent waxee bi mu faatu fukki fan la am kon da nga naan xadis bi mi ngi ko def dix jours avant muy faatu ci misaal yonent bi nee na seen guddi gi xam ngeen ko ñu ne waaw mu ne gis ngeen guddik tey gii suñ ci tegaatee téeméeri at képp koo xam ni mi ngi woon ci kaw suuf di dund du ko fi fekk dana faatu képp ku mu fekkoon ci kaw suuf dana faat moo tax al imaamu al alusi mu ni wa hada abaadu min altawil mu ni képp ku doon wax ni xadir mi ngi dund di taawil ay wax ba yegg ci xadis bii mu ni kon say say wax war naa jeex parce que amatoo loo wax ndax même boo nangu woon ni mi ngi dund sax war ngaa nangu ni kon faatu na tey ginnaaw téeméeri at bu yonent bi jógee fi alayhi salaatu wasalaam ibni hajar mu doxal jëlee ci ibni battal mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa namm ni amul benn bindeef bu mu fiy fekk lu dul saw fan moom dana jeex ak loo koo mën a doon nag ci mbindeef yàlla yi ñi nga xamante ni ñooy doomu aadama yi ci kaw suuf moo tax imam Bukhari bi muy jàngale ba mu yàgg ñu ne ko waaw Ilias ak Xadir moom loo xam ci seeni mbir ñoom ndax ñu ngi dund ba léegi mu ne laaj boobu daa jar a laaj xanaa xadis bi jàngoo ko xam nga xadis bi mi ngi ci mi ngi saxe mu ne laaj boobu jarul laaj ndax waxi yonente bi alayhi salaam tegtal la buy wane ne kon Xadir faatu na jeex na te kon yi ay tegtal la yu bari yoo xamante ni maanaam day wane ni maanaam xadir moom jóge na fi nekkatu fi waaye faatu na yonent bi alayhi salatu wasalam keroog badar déglul dani allahumma in tuhlik hadihi al isaba la tu'badu fi l ard yow sunu borom boo nu seetaanee ba mbooloo mii jëm badar ñu gañe leen jeex na amut ku fi des ku lay jaamu ndax ñun ñi ñoo ñi gëm yàlla ci kaw suuf léegi laaj bi ngay laaj mooy ana xadir booba yàlla boo seetaanee mbooloo mi bañ gañe leen kon deetu la jaamooti ci kaw suuf ndax ñun ñii di xeex tey ñoo fi ñu gëm yàlla laajal ana xadar ki nga xam ne day saxal ne xadar mi ngi dund laaj ko anam lu ko teree ñëw te ñi nga xam ni ñoom ñoo demoon badar ñetti téeméer lañ ak fukk ak ñett gis nga ñetti téeméer ak fukk ak ñett yooyu boo delloo ci al bidaaya wa nihaaya ibn hajar dafa ubbi benn bu tuddee ko asmaau alladina shahidu badran bi ma ko tiimee dama ne mbokk yi man de ibnu hajar damaa xamul keroog badar comme ni ko gars yi waxee ibni kathir ku ma moo nekkoon journaliste bi ku ma nekkoon caméraman bi dama ni ñi nga seen tur ñëpp ñëw tudd tàmbalee alif ñi seen tur tàmbalee baaj ba ñi seen tur àgg yaa kenn ku ci nekk diw doomu diw diw diw doo da nga yaakaar ni ibnu hajar keroog ibni kathir keroog bi ñuy def badar moom moo taxoon di filme xoolal xoolal xoolal yàlla ni mu baaxee xeet yu ay boromi xam-xam yoo xam ni lépp li ñuy aajowoo rek daanaka ci diine ñu wattu nañ ko ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñëpp dafa indi ku ñuy tudd xadir amu fa ku tudd xadir amu fa comme amu fa rek mooy bokkul woon beneen bi ci des mooy wa it axada allahu mitaaqa nabiyin lama aatitukum min kitaabin wa xikma aaya ji ba mu jeex suñu borom siñeente ak yonent yi yëpp yi jiitu muhammad ni leen bu yonent bi dikkee la tuminun na bihi wala tansurunna di ngeen ko gëm di ngeen ko dimbali waaw xadir kon moom bi yonent bi yegg see moom lu tax bokkul ci mbooloo mi koy dimbali keroog bi ñuy damm ba ñu yonent bi fu mu ne woon keroog bi ñu koy gaañ ci jeune bi fu mu ne woon ba mu doon julli ci kaaba ga ñu koy sotti ay neefare ci digg ginnaaw bi fu xadir ne woon yii yëpp ay mbir la yu lay wan ni kon xadar néew bi dafay nekkul dafay newul bu fi newoon dana ñëw beneen bi ci des bokk na ci yi nga xamante ni ay tegtal la yuy wane ni xadar tamit faatu na mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo wax ni xadar mi ngi dund ba tey borom xam-xam yi dañuy wax ni boo seetloo seeni tegtal am na ay mbir yu koy wetti bi ci njëkk mooy ñenn ñi ñi ëpp ci ñoom dañuy wax ni xadar ci doomi aadama ya la bokkoon doom la ju aadama jural boppam ibnil jawzi bi muy indi yi nga xamante ni xel sax nanguwu ko dafa indi fukki mbir yoo xam ni benn bu ci nekk xel da koy dàq ni loolu wérul mu tudd ca ñaar ñaar yi nga xam ni moom laa ci nar a tudd mooy yi ca gën a dëgër yi lay wan ni kon loolu sax wérul bi ci njëkk mu ni maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy wax ni xadar ci doomi aadama yi la bokkoon kon jamono jooju war naa fekk mu am juróom benni junniy at juróom benni junniy at ñi nga xamante ni ñoom ñoo wax ni xadar ca doomi aadama yi la bokkoon kon bi jamono bi yeneen si biy dund fekk na mu am juróom benni junniy at mu ne juróom benni junniy at doomu aadama ju ko am war ngaa mën a nekk kéemtaanu yàlla goo xam ne wax dëgg yàlla alxuraan sax dina ngi ci ko wane loolu ah yow ku yàlla dundal téeméeri at rek sunu borom def ko kéemtaan gu rëy ba di ko nitili mu yox zeyr asxaabul kahf bi gisoon ngeen mu ne kéemaan sunu borom di ko nitili waaw kon ana ki dund juróom benn junni at kooku lu tax kenn tudd ko li tax kenn tudd ko mooy da kaa dund loolu rek lay tekki ñaareel bi mooy ñu ni maanaam ci doomi aadama yi la bokkoon aadama moo ko juróon alayhi salaam te loolu mënta nekk li tax mënta nekk mooy yonent yàlla bi nee na xalaqa allahu aadama tuuluhu sittuna ziraan fa lam yazal alxalqa yanqusu baadahu xatta al aan nii ba muy sotaan ci ay xasab noonu la yonent yàlla aadama guddee woon joor ca kaw nee naa aadama moom bu ñëwoon Dakar suñu immeuble yi bu soxlaa dixième étage day taxaw rek ci suuf yootu loxoom jël ko mu ni noonu la aadama meloon waaye nit ñi di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba tey waaye ñi doon wàññeeku moom bu fekkoon te di xadir bokku ci moom kon xanaa waru yent bi waroon na ko ci limaan ni kon boobu ba mu des xadir waaye di wàññeeku la wax kon foofu amul kenn ku fa joolee ba mel noonu beneen bi ci des mooy ci nuux alayhi salaam ba mu yéegee ca gaal ga amul benn borom xam-xam bu ñuy dellu ci moom buy wane ne nuux kat ba ñuy yéeg ca gaal ga xadir bokkoon na ca amul benn borom xam-xam bu ko wax beneen bi ci des mooy même bu fekkoon te ni kenn wax na ko yow alxan da koy weddi ndax bi ñu wàccee ci gaal gi ñëpp a faatu suñu borom mu ni wa ja'alna zurriyatahu humul baaxin njabootum nuux kese ñoon bokkoon ci ñi des ci ci kaw suuf ñi ci des ñëpp seeni askan dafa daal di faagaagal moo tax suñu borom yonent yi ñëw ci ginnaaw nuux yëpp daanaka ñu ngi bàyyeekoo ci li nga xamante ni moom mooy njabootam. kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy wax ni maanaam xadir mi ngi dund ba tey boo dee seddu am wenn tegtal amuñu ko moo tax ibni daqiq al aid imam ju mag la min aimati ahli sunnati wal jamaa moom moo taalif téere boobu sax amdatul ahkam muy ihkamul ahkam ibn daqiq al aid borom xam-xam bu mag la waaye nag xam nga léeg-léeg nit ki sëriñ bi koy jàngal dafay dafay rëy ci kanamam ba yi muy wax yu ci bare bare bare daanaka du vérifier sax ndax noonu la am déet dafa am benn sëriñu ibn daqiq bu doon wax ni xadir mi ngi dund ba tey xadir mi ngi dund ba tey maanaam daje naa xadir daal sëriñ bi da doon wax ni moom daje naa xadir te sëriñ ibn daqiq la ibne dox xam naa ni muy nettali wax jooju benn bis muy jàngale ba mu yàgg mu ni muy wax ci mbirum xadar ba mu yàgg mu ni sama benn sëriñ diw sax nee na daje naa xadar benn ndongoom jub ni ko waaw kan moo ko wax ni ko kam dajal mooy xadar ibne daqiq ni teg keroog la sa génn keroog la sa génn gis nga de moo tax léeg-léeg ab laaj dana jóge foo xamee dafa mel ni daal ku yàlla yabal la subhanahu wa taala kan moo ko wax ni kim dajal mooy xadar mu ni teg keroog la bàyyi masala ko ci la doog a xam ni kon masala mi demeewul noonu beneen bi ci des mooy li ma junjoon tànk hada firaaqu bayni wa baynik yaakaar naa ne xadar ci boppam bu fekkoon ci du yeneen amut lu mën a def lu gën dem continuer ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Muusa alayhi salaam ñi nga xam ñooy wax ni xadir moo dajeeg ñoom moo leen wax nangam wax dëgg yàlla amul benn tegtal buy wane ni xadir moo la wax ndax bu fekkoon ci ne loolu la yaakaar naa yéen ñi ci jàkka ji kenn ku ci nekk bu yeewoo suba mën naa wax ne xadira ko feeñ ku lay wet amul ku la mën a wedde parce que benn tegtal buy tënkaate xadir kii la war a feeñoo warut a feeñu kee moom daanaka amul lu dul ñoom ñoo ko tegal seen bopp te ñoom sax respecté wuñ sart yooyu ñu tegal seen bopp. ñàkk ñëwam jihaad ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam su fekkoon ni mi ngi dund ci doyadeem lay bokk moom xadir su fekkoon ci dundam da doon fekk muy dund kon ci ak doyadeem lay bokk. beneen bi ci des mooy amuñ benn tegtal boo xamante ni xaw naa jege dëgër ci ci alquran wala sunna luy wane ni mi ngi dund ba tey moo tax yenn ci borom xam-xam yi ñu ne xadis bii ñu doon junj sànq di wane ni moo taneekus néew am na benn bu ñuy wax Muhammad ibn Abdul Aziz ar-Ramali kooku imam Abu Hatim Abu Hatim imam la ju mag min a'immatil jarh wa ta'dil ci xam-xamu xadis daanaka dafa ruslu sax ngay jàng xadis te xamoo kan mooy imam Abu Hatim ndax kéemtaanu suñu borom la woon ci ilmul jarh wa ta'dil moom nee na waa ji ku daif la te mi ngi ci biir càllale gi yemul ca loola Abu Zur'a imam Abu Zur'a Abu Zur'a ak Abu Hatim ñoom kenn ku ci nekk imam la min fii hada al fan moom it nee na laysa bil qawi kii du waa ju ñu jël ay waxam ila axirihi ñaareel moom mooy Damrata ibni Rabia Damrata ibni Rabia mi ngi ci càllale gi Cheikh Shuayb ibni Shuayb al Arnaout nee na xadis bi xadis la bu daif bal ci munkaraat yi lay bokk parce que waa ji kat ku daif la kenn du jël ay waxam maanaam dañ koo jaraxu dañ koo sànni kenn du jël ay waxam beneen bi ci des mooy gis nga pas-pas ak sufiyanke ñoom bokk na ci pour wane gis nga nit léeg-léeg boo nekkul ci dëkk da ngay wax bay weddi sa bopp bi doo ko yëg li ko waral mooy ñoom bokk na ci seen i tegtal ak seen i sukkandikukaay nee nañ ahadisul ahad hadisu ahad kenn du ci sukkandiku ci buntu pas-pas ñoom loolu la ñuy wax xadisu ahad xam ngeen xadis dafa am ñaari xaaj dafa am ahad am mutawaatir mutawaatir mooy loo xam mbooloo mu bare bare bari soloo nañ ko ba ku ko dégg da nga xam ni lii moom warut a mën a nekk ay leen ahad mooy loo xam daanaka ci wenn yoon rek la jaar ñu ni ci wàllu pas-pas kenn du ci sukkandiku ci ahad waaw ki tabax loolu ba noppi naka lay mën a sukkandikoo ci xabari ahad yi bari yoo xamante ni benn waaye bu ñu naan xadir moo koy di ay ci ay nelaw moo tax benn borom xam-xam dafa dem ci réewu Europe yi di def benn conférence pour wan la ne gis nga léeg-léeg mbir yi day nekk yabalug yàlla bokk na ci lim doon défendre mooy xabaru ahad kenn di ko sukkandiku ci wàllu pas-pas tubaab yu xonq cooy ñoo xam ne ñu doog a xam islam mu di leen waar def détaillé leeral leeral ba yeggal benn tubaab daal di jub ni ko waaw kon yow da ngay delluwaat fa nga jóge woon nga indi mbooloo mu ñuy dëggal ni li ngay wax dëgg la ndax yow aaxaat nga ak ko wax dëgg nag wax na ko dëgg parce que xabaru aaxaat comme kenn du ci sukkandiku te yow kenn nga yaa ñuy defal conférence comme nangu nga ni kenn du ci sukkandiku rek léegi faw nga indi meneen mbooloo mu ñuy war ni yow mii li ngay wax dëgg la moom it keroog la bàyyi masala moom moo tax ma ne la am na masala yoo xamante ni yàlla moo la nar a dimbale di la gindi kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy wax anal xadar man maay xadar ak yi demee noonu maanaam yooyu yëpp nekkul loo xamante ni lu wér la tegtal yi nga xamante ni moom lañ ciy sukkandiku tamit amul Omar ibn Abdul Aziz déggal al-allaama ash-Shanqiti soo demee ci tafsiram mi ngi wax ni ñi nga xam ne ñooy wax ni yonent bi alayhi salaam bi mu faatoo xadar ñëwoon na di jaale wax ay baat yu rafet naan yàlla jël li mu moom wax ay wax yoo xam ne yu kéemaane la muy déedéet mu ni jinne ju gëm yàlla mën naa ñëw taxaw sax wax loolu ni mooy xadar ndax jinne ju jinne mën naa fen waaye mu ni duma laa ko mukk cheikh al islam ibn taymiya boo demee ci majmuatul fatawa mu ni wax yooyu ñuy wax yëpp ci ko askan ne na malaaka ko def mu ni déet du malaaka malaaka du fet ñu ni ko jënne mu ni dina mën naa fet moo tax benn bi bi mu nekkee ci ab dëkkam ay ndongom ñoom dañu koy addi ak wax wax ay wax yu bari ni ko bis sàngam dañoo nekkoon ci caravane bi benn agresseur ñëw bi ñu xitili koo ci cheikh al islam ibn taymiya rek cheikh al islam yow yaay ñëw xitili ñu mu ni ne man yëguma loolu sax mu ni wallaay yëguma loolu fekk mi ngi doon sardu nit li ñi nga xam ne dañuy sukkandiku ci comme exemple suñu jamono yi tey fan yi passé maa ngi déglu rajo benn waaye mu ne xaw bu nekkee Europe ñu tëj ko ci kaso non subhaanallah gis nga ñàkk xam sunna ñàkk xam sunna day doyee dal nit rek mu ne mu nekkee ci kaso bi dafa am benn photo sëriñ bu nekkoon ci poche ginnaawam mu yëkkati poche bi photo bi xool ko daal di diw yow yaa waxoon ni ku la woo ci photo nga wuyu ko tey maa ngi lay woo ci photo bi xili ma tey jii subhaanallah mu mu wax ci ay wax yoo xam ni wallaahi laxasa kandang li kàcc yoo xam ni gis naa koo nit ñi sax ci jàkka yàlla ji di ko wax publiquement li may wax rajo laa ko déggee de nga xam ne nit ñi kon dañuy gëm yooyu gis nga kon yooyu amul bu ko defee seeta tam tey mu ni man yëguma woon ni sax yéen da ngay demoon ci ab karaba ñu ni ko kon malaaka la mu ni du malaaka ñu ni ko noo def ba yow yow kon yowa ñu ni ko yow kon yowa ndax yow ñëwoo ba pare mën a xam ne du malaaka mooy li ma def ba xam ne du malaaka mooy yéen ñu moo ñu leen mooy seen xel tey bi kon du malaaka ndax man wir na ma ne du man te bu dee malaaka moo ñu leen man la ibnu taymiya kon wax na lu amul te malaaka du wax lu amul kon jënd la. soo demee ci téereem mu jàllat bi mu def ci at-tasawuf ci majmuatul fatawa leeral na ci masala yu am solo yoo xam ne ñuy gëpp ci bunt bii mën nañ caa jëlee ay njëriñ tomb bi may jeexalee mooy ñi nga xamante ni ñoom dañuy faral di wax ni xadar mi ngi dund seen tegtal yi gën a rëy nag bokk na ci mooy ibni xajar tudd na ko ci isaaba defe naa li dundoon naa ko daal bi passé cheikh bi dafa wax fii wax ju am solo mu ni gis nga kii wax wax ji imma jaahilun murakkab la yadri ma yaqul li wala fi tuddee dox bu roob dox boo xam ne da ngaa dem ba jeexalum dox nga xam ne xamatoo sax looy wax mu ni képp ku wax lii rek da ngaa nekk yow kenn ci gaa yooyu wa illaa nga nekk waa joo xam da ngaa xam dëgg ba noppi teg ci say tànk ndax la ko waral mooy alxaafis ibnu xajar boo delloo ci muqaddima bi isaaba ci introduction mu jàll bu njëkk ba ndax isaaba mi ngi nekk juróom-ñaari mu jàllat ci tabaat yi ñëw fii boo demee ci tabaat bu njëkk ba mu ni damaa sartoon ci isaaba ni képp koo xam ni tudd nañ ne ci mbiram saxaaba yi ci mbiram saxaaba yi dinaa la indi kon loolu moo ma conditionné ba faw ma indi xadar parce que nee nañ xadar mi ngi dund ba jamono jooju nee nañ la wax waaye nag ànd ak loolu lépp moom la mu saxal moom mooy xadar nekkul kuy dund waaye ko faatu la muy benn beneen bi ci des mooy ba mu ko tuddee ba noppi lam ca teg mooy dani li gën a dëgër ci ay tegtal loo xam ne xel mën naa jéng jëm ca mu ni loolu moom mooy xadar moom faatu la kon yii ay tegtal la yoo xam ne mbokk yi defe naa doy na sëkk ci wane ni xadar moom faatu na léegi masala mi ci des mooy xadar faatu na xadar du yonent xadar xadar ci yonent la du wàlliyu ginnaaw bu ñu xamee ni yonent la du wàlliyu xam nañ ni faatu na am na ñoo xam ni mooy ñi ma doon léegi ba léegi loolu lañ fas gis nga loolu nag am na ay nataayij ay nataayij yu garaaw yoo xam ni ay nit ñu ngi koy fas ilaa yow bi naa xaataa gis nga téere bii ñuy wax jawahirul maani mi ngi ci marché bi soo amati daal boo ko taal gis nga boo ci delloo lii may wax damaa teewlootul ci ban paas la xam naa dars bi ñëw su ma ko teewloo dinaa ko ëndaale boo ca delloo xam nga lu mu wax dañuy it ci dina àgg ci wilaaya ci góorgóorlu ci jàmbaarte ba yegg foo xam ne sariya dootu ko tënkati bu naanee sàngara du ko wàññi dara bu njaaloo jigéen du ko wàññi dara. wallahi alazim lii moo ko wax donc benn ngoo bokk na ci ñoom yi ñuy wax dañuy wax yi nit dana dem ba sariya dootu ko tënkati ba moom maqaama ci muy am mooy gën a kawe maqaamam ab yonent mooy gën a kawe maqaamam ab yonent loolu kay leeral na maqaamu nubuwati fii barzaqin fooxe fooxe fooxe fooxe rasul wa duna nabi fooxe rasul wa duna nabi mooy ab wàll yi ba mën a dem ba supplé ay ay gis nga ñoom bokk na ci seen yi ñuy tegtaloo ba tax tey jii ngay gis da ngay gis benn waay boo xam ni comme ni ko gars yi defe naa lii may wax nii xanaa ñeme ko wax ak ragal ko wax a fi nekk da ngay gis waa joo xamante ni ca biir fii ilaa yow mi naa xaaral tey jii may wax ak yéen ngeen yëg ko kër yi nga fiy dugg ñuy askanoo diine ci bunt bii may waxee dama ni la am nañ ay naanikaay sàngara maa la wax lii maa la wax lii àgg na ci nit ci day yegg ci sariya tënkatu ko aqiqa ko tënk aqiqa te ni la aqiqa sax kenn du ko wax parce que du arab xaqiqa la ñuy wax da ngay takk lu ëpp ñeenti jabar man nit ñi dama yaakaar ni gis nga xam nga nag li gën a metti mooy ponkal mu jàkkaarloo jant bi danaan jant fenk ko kenn ci seen kilifa yu mag yi nga xam ne tey kuy giñ da nga koy giñee seen jabar yu bari fu ngeen ko teg mu ni xanaa kii da di dóor bakkan loolu de leer publiquement seen jabar yu bari fu ngeen ko teg mu ni xanaa ci kii rek topp kii rek bakkan benn waay netti na ma bu bu yaroo ci kër yooyu nee na ma da nga ci gis kenn ci ñoom ku am lu ëpp daanaka vingt cinq jabar wala trente soxna diw bu ayee balaa ayewaat bul xam kañ lay doon vingt cinq jabar su leen di góor di yore su ko defee bëgg néeg bi day ñëw mu ne ah mu bàyyi ba guddi mu fëgg benn soxna lii may wax ku ko dund mooma ko nit yi nga xam ni mag bunt yi mel nii ku ciy wax da ngaa war di wax lu leer nag comme comme fëgg kenn ci soxna yi soxna si ubbi mu ne ko sëñ bi gëj na fee ayee mu ne ko waaw waaw mu ne ko bëgg moo ayee mu ne ko waaw mu ne ko suba tijjil dégg ngeen li ma wax suba tijjil ma boo may tijjil bu soobee balaa gis bay dellu si di nga aye ndax xam naa sëñ bi jege naa ko lool su ko defee ca suba sa
da koy fëgg bu ko fëggee mu tijjil ko mu dugg faj aajoom daal di génn dem yoon bu ko defee daal di wax waa ji bu ñëw aya fa xam nga foofa doom juddut noonu mën na faa juddoo gis nga kilifa gi moo la gën a xam ñim jur ak ñim jurut parce que xam na fu mu aye fu mu ayewul woon gis nga buy dund ku judd rek dana nañ ko santale sant bi loolu moo tax nga gis doom yi di bari waaye balaa ñuy faatu am na fooyoo ñuy bind diw mii bokku ci moo tax tey boo demee ci kër yi kilifa yi diine yi am na ñoo fay fekk ñoo xam ne ña nga sant sant wa rek waaye bokkuñ ca ndax balaa waajee dee bind na diw fooy wane ni diw ci la diw bokk ci diw ci la diw bokk ci ndax du ñu ay doom xam naa ko gis nga lii mi ngi am tey gis nga am na ci ñoom ñoo xamante ne laa yaxduruna jumaatan wala jamaatan wala xajjan wala yuxrijuna zakata parce que sharia tënkatu leen bokk na ci yi nga xamante ni seytaane daf leen koy naxee ci buntu boobu mooy faw rek nga bàyyi benn ponk ci ponki lislaam yi aj nag lañ gën a yab moo tax li ëpp ci ñoom da ngay gis duñ nangoo aj duñ nangoo aji da ngay gis waa joo xam ni sa waay yàlla baaxee na ko ba muy yóbbuwaate ñuy aji waaye moom du aji parce que seytaane pour mu may ko mbooloo waaye nag am na yeneen yu ne ci biir yuy am te xamuleen ko nag mooy gis nga léeg-léeg seytaane jàpp ci kenn làpp ko ba mu ñu waali te kenn du yëg duñ ko siiwal am na ci kilifa gu mag goo xam ni ku nu xam la fii benn maire moonu nit li ni lii bi muy am ci kanamam ci saalam ba jékki-jékki rek sàqali ko sagom rek futteeku def yaramu ne rek di génn nit ñee daw téye maa la wax loolu ah iblis iblis kat nag moom lu mu la may bu koy nangu day yóbbaale sa tubay du ndaw lu mu la may nit bu koy nangu sa tubay du ndaw da koy yóbbaale maire bi nee na bi mu génnee aw saaga la dagg woo xam ni lu ngeen fi wax loo xam ni daanaka fii jàkka la nit ñi di dégg lii moo ko fekkee moom ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni daanaka wax dëgg yàlla ñaawaay ba tax na sax jërul di wax lii li tax ma di ko nit li mooy ngir ngeen xam mbir mi fi mu yegg mbir mi fii la yegg xam ngeen ni gis ngeen Abdul Aziz Ibn Mas'ud Dabbaax moom ma la fi waxoon xam nga ni ku toog ba naan sa sab taalibi soo nekk soxna ci biir néeg di séy ak moom sax maa ngi lay gis ñàkk fayda mën sa paase loolu amul jot gooy am lu dul yëddu ñuy ànd ak yéen soxna si yéen biir néeg xam nga loolu ak gooye di la yegg nañ ci ba nit ñi déggal gi mu leen déggal gis nga tey nit li tax mu saña am orma ci kilifa diine gi te du ko am ci baayam li ko waral lii la gis nga boo demee ci téere boobu ma lay wax Ibris waa jooju mi ngi fay nettali benn kenn ci ñoom yàgg ña dafa toog yàgg mu ne taalibe bi yow su ma la waxee reyal sa baay di nga rey sa baay mu ne kon luy tee ma rey ko wax kon es mu ne ko demal rey sa baay waa ji ngàbbu jaasi ci xaaji guddi mu ne mu ñëw ba tëb miiru kër gi fekk tëj nañ mu tëb miiru kër gi mi ngi ñëw fekk baayam ci kaw yaayam dégg nga wax ci de mu daal di koy rey dem bi mu yegsee mu ni sëriñ bi day naan mu ni ko rey yow ma doon kaf rek day def njëkkum dëkk mu ni ko man xamee wu ma la kaf gis ngeen góor gi da ko defar defar bu rafet pour wan lañu ne gis nga saay taay saay taay rek lay mën a doon góor gi xam nga lu mu wax mu ni lii nag bu leen ko déggee ci zahir de waaye baatin la mooy li ma la waxoon séddale gi ñuy séddale diine zahir ak baatin mu ni xam nga lan la bàyyi daa génn benn agresseur dugg fa ah di bëgg a ànd ak yaayam ma kas fu loolu dégg nga de mu ni ma kas fu loolu bi ma ko kas foo ma gis ko ci laa di ko demal rey sa baay bu ko defee bu ñëwee moom day defe ni baayam la rey ndekete reyut baayam parce que léeboo ne ci léppoon yi mel ni sa waay kursi ak siyaatam waaw après ba agresseur ba dee ana baayam ah jar naa laaj ana baayam ala kulli xaal yi ay xuraafaat la yoo xam ne wax dëgg yàlla ñun nanu xam ni ahlu sunnati wal jamaa seen pas-pas nanguwut loolu mooy xadar ab yonent la kon nit sëñ sa jàdd sariya di sukkandiku ci xadar beneen bi ci des mooy dundatut waaye faatu la kon buntu boobu lañ ñu woon leeral ko doog a jàll suñu bind dina am solo ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain aywa naam waaw Cheikh Abdoul Qadir Jeylaani ala kulli xaal su ma ciy leeral damay wax ñaari wax wax ju njëkk ji mooy imaamu zahabi de moom boo demee ci seeru alamin nubala bi mu koy tarjamal bi ñu ko laajee Cheikh Abdul Qadir dafa wax ni moom ci jëmmi boppam da doon wax ni ana salafi moom moom loolu doon waxal boppam moom Cheikh Abdul Qadir Jeylaani moom boo ko mosaan laaj dalaan moom ana salafi moom salafi la muy benn beneen bi ci des zahabi tamit nee na lu baree bari luñ koy askanalee ci ay nu mu tuddati ay wax zahabi su ma fàttewut ma nga cay wax ni amul ku ma xam koo xam ni tuumaal nañ ko ci ay tuuma yoo xam ne du dëgg lu toll liñ tuuma Cheikh Abdul Qadir Jaylaani kon ça veut dire que amal na yuñ ko waxal yu bari yoo xam ne waxu ko waaye bu loolu lépp jàllee téere bi mu taalifal boppam moom nga xam ne bii xam nañ moo ko bind muy al-Ghunya moom la ca nekk ci ay jaaxum moom daanaka xaj na ci camion bi njaaxum yu bare bare bare yu mel nii moom ma nga ca ànd ak nag am nay mbaax mbaax nag moom damaa xamatul ndax ci siyar la wala ci ci sifatu safwa ñu ngi fay nit yi maanaam bokk na ci moom yàlla defal na ko ay karamaat ala kulli xaal ay karamaat moom amoon na ko moom su ñeen ñi wax ne ay karamaat la dem na di jàngi bi mu demee jàngi yaayam daal di koy yóbbante maanaam mbuus gu def ay gato waa ji ñëw ba ci jàkk jëm jàpp ni ci la si Abdul Qadir nekk gisu ko mu daal di toog ci jàkk ja moom it moom it moom mi ñu yóbbante yóbbante bi daa xiif moom it mu jël yóbbante bi di ko lekk si Abdul Qadir boobu fekk na mi ngi wër ci sën bi ndax amut lu mu lekk moom dee dem na ba wër ci sën bi pour lu mu lekk mu ñëw seen benn waay buy lekk ci jàkk ji mu ñëw toog moom it nee na waa ji daal su ŋaayee ma ŋaa su yëkkati ma yëkkati sama ndox ndax maa ngi ko bëgg a ñaan te rus naa koo ñaan waa ji ne ma kaay ma may la nee na ma rus xam nga ñoom bokk na seeni pas-pas ñoom dañuy ay ñaan ak yooyu duñ koy faral di bëgg nee na ma jékki-jékki ba mu yàgg waa ji daal di koy laaj ni ko waayoo xamoo ci dëkk bi ku ñuy wax si Abdul Xaadir Jaylaani dama daal yaayam moo ma yóbbante gato yi ci moom wër naa ko wër wër gisuma ko mu ngi nii maa ngi koy lekk ci la loolu ni ko mën naa ci am maam di wax ay kéemtaan yoo xamante ni xëy na ay dëkk wala yàllaa xam xisas yi wér na wala wérul lu ma ci am nit nañ ko ay mbir yu bari waaye nag ay xuraafaat mu waxal nañ ko donte nag moom am na ay safahaat yu bari moom ndax téere bi muy wax muy alxunya boo ca delloo am na ay njuumte yu bari waaye nag ku baax la xasba li imam zahabi na ci ku baax la jaamukatu yàlla la woon tey ku ragal yàlla la bokk na ci ñu koy li tëdd na ci néeg moom yàgg iblis ñëw def lëndëm ci néeg bi lëndëm lëndëm leer ak leer mu xaw a bert mu jégam yàgg ma ne ko ey Abdul Qadir man maay yàlla man maay sa borom wàcce naa la junni mu ne ko tuugawaay saay saay bu bon bi nga doon affaire bi jékki-jékki ba mu commencé bëgg a nelawaat mu ñëwaat indi leer gi mu xaw a xonq yooyu mu ne ko maa ngi wax ak yow waaye daa mel ni amoom dégg-dégg man la yàlla wàcce naa la julli mu ne ko tuuga saay saay bu bon bi mu dem bi yàgg leer gi ñëw commencé di bula def ay ñetti ñetti façon daal bi mujjee mu ne ko saay saay bi man xam naa ni iblis nga juge fi iblis daal di koy laaj ni ko waaw yow nan nga def ba xam ni man la iblis te lii ma la naxee te junniy moroom nax naa leen ci mu ne ko leer gi bi mu ñëwee dafa soppeekoo ka soppeekuwaat te leer ak suñu borom soppeeku soppeekuwaat du ko ca fekk ndax màggaay gaa tax ñaareel mu ne ko da nga ni may wàcc naa la julli te xam naa ne suñu borom bu amoon ku muy wàcc julli yonent bi la koy wàcc te wàcc wu ko kenn kon lii ngay wax du dëgg kon yu mel noonu wax dëgg yàlla ci ay baax ala kulli xaal dañ koy jàppee ko baax xas ba li imam Zahabi wax ci moom jaamukatu yàlla la woon ku ragal yàlla la woon te it lam doon wax nag nan ko ca àtte mooy dana wax ala salaf loolu wax man ci ana ala manhaji salaf wallahu taala alam aywa naam Abdul Aziz ibni Mas'ud ad-Dabbaax noonu la tudd ban at la de teewlu ma ko waaye ca ñu yàgg ña la moom du bërki dee boobu moom at yu yàgg yaa yàgg yàgg yàgg la am na kilifa diine guñ ko tuddee fii nag moom moom la waaw waaw muy benn moom mu mag ma moom moo taalif téere boobu ñu tuddee Ibriz téere boobu lañ wax ni moom la ab sëriñ fii di jàngale ba ñu fekk ko fa muy jàngale ne ko soxna mucc na mu ne kon tuddee naa ko borom téere mu jeex wasalaam naa boobu leer aywa naam tënkuwut ci ndax bu jullee ba am weer wala bu jullee ba am ñaari weer mi ngi tënku ci mbërëgam jeex gësinam jeex na wala jeexut wala àgg na ci quarante jours war a am quarante jours daal xadis biñ toxal di rek ci umu salama te mi ngi sunan abi daaw te xadis la bu wér mooy jamono yoon sasan dañu leen digal ku gësinati na toog ñeent fukki fan ñeent fukki fan yi tekkiwul mooy bu ñu fetee ci diggante bi day continuer di toog ci xaar ñeent fukki mat déedéet maanaam sa dernier àpp mooy ñeent kon ndaw si bu amoon doom toog une semaine mu set day commencé julli su amoon doom dix jours mu set day commencé julli su continué woon ba trente neuf jours mu xëy quarante jours affaire bi arrêté wut moom na commencé julli te xam ne lii leneen la waaye quarante la war a yor